ñu dal di convoqué premier ministre Ousmane Sonko le 11 septembre li tax may expliquer lii dafa baax ndax lu ne dégg nañu ko fi ndax bëgg a yàq bëgg a yàq ay diggante ay diggante boo fekkee mu am boo dee jullit da nga ciy wax lu baax walla nga génn ci ndax donc c'est important ñuy wax ak sénégalais yi li xew le 11 septembre ñu ne yoo yaay dañuy daane gouvernement xam nga dégg naa ne wax naa leen sànq ne dañu ne loi d'orientation budgétaire maanaam waxtaanee na nu nara a liggéeyee Sénégal ak koppar yi fu ñu koy yóbbu pour année bii ñëw ñu ne du fi amee waaye pare wuñ ca loolu de ñu ne dañuy daane gouvernement Sénégal motion def ko nag ci anam bu illégal ñu dégg ci nag kenn xamul. ñoom am na ku ca ne ca ñoom ne séance su fiiriir fiiriir lañ koy def fiiriir dañ daan fiiriir ca bu njëkk ba ku ko waxoon ca pénc dañ lay génne dëkk ba xam ngeen li ma wax ndax nit bu ñëwee danañu ko doggate fiiriir ko boo ko waxoon ca bu njëkk ñu génne la dëkk ba foofa yépp dootoo ko ay say bagage ngay jël daf waaw loolu lañuy ñuy doy assemblée kon nga doon wax loolu moom dëgg yàlla wane na wane na extrême médiocrité de l'Assemblée nationale te ci choix wu président Macky Sall dañ fàttaliku na mu ñëwee am ku ñu dindi ku jigéen pour indi ko loolu ci li gën a metti soxna yi Sénégal ci la bokk ndax melunu noonu jegewuñu noonu mel noonu kon c'était d'abord illégal seen 11 septembre boobu président Bassirou Diomaye Faye jël ay matuwaayam yi nga xam ne moom la ko yoon jox le 12 septembre mu dal di dissoudre assemblée nationale mu dal di jeex ñu sant ko ci bu baax ndax dëgg yàlla munu taalee rajo bi télé bi mën a noppalu tuuti donte sax président Bassirou jamaay fay ba mu tàmbalee. la mu njëkk a def mooy wane ne moom père de la nation la ndax père de la nation du ci ay at ci suffrage u sénégalais yi nga koy doone sénégalais yi